ayca les téléspectateurs ñu jàll ci actualité ah Aliou Sow Sokolo ndugg bi yaa ma ko saamal nii ca donc euh, mu mel ni wal euh, Walf Quotidien la ñuy tàmbalee donc Walf Quotidien di kat ci investiture au local difficile choix à Benno donc mu mel ni jamono ji le président Sall waxoon na ko moom mooy dressé liste ñi nga xamante ni ñooy nekk ci euh, liste électorale yi mais ba léegi ni si defagu ko waaye nag euh, Walf Quotidien di xam ne ni jamono ji euh, njàqare la ci àndal na xamul kii mettre ci ñi nga xamante ni ñoo di ci liste yooyu

nationale euh, parce que LD Debout dafa dem mhm. yow y a d'autres euh, tout ce qui avait représenté Benno Siggil Sénégal euh, se trouve au niveau de Benno Bokk Yaakaar c'est une grande coalition de partis politiques mhm. te donc une présidentielle c'est très facile parce que tout tourne autour justement de la personne c'est une élection législative c'est encore un peu moins difficile parce que tout simplement euh, euh, il s'agit de de de choisir euh, un certain nombre de, sur une liste un certain nombre xam ne donc ñi ngi nekk ñoo war ñoo war a représenter donc donc benn yaakaar donc c'est moins difficile je pense que c'est autour de 165 députés uh mm-hmm. -huh. mais euh, a plus de 557 euh, ou 556 communes d'arrondissement au ñoo xam ne ku ci nekk war nga bëgg a une position pour être donc candidat ci turu Benno donc donc pour que mu mu mën a am benn espèce su homogénéité bu leen di permettre ñoom ñu am plus de chance pour remporter ces communes. Mm-hmm. donc dina compliqué trop pour moom parce que il faut que mu en même temps mu sóoraale euh, il faut mu sóoraale coalition bi il faut mu discuter euh, les grands leaders ces trois grands euh, partis qui sont l'AFP ak le parti socialiste ak ñeneen ñoo xam ne ils sont ils sont bons dans leur dans ils mais ci seen gox ils sont bons là-bas. Mm-hmm. donc day day compliqué pour pour pour moom moo Euh, Walf Quotidien euh, donc euh, titre ni choix yi dina metti trop au sein de Benno parce que xamul moom nan lañ ko nan la président Macky Sall ak les ces grands leaders qui sont autour de lui je pense à Moustapha Niasse je pense à Aminata Mbengue Ndiaye entre autres ñoom nan la ñu war a def pour gérer loolu yëpp Macky comment mhm. il va faire mais surtout les les les mouvements aussi de soutien yoo xam ne ñu ngi nekk aux côtés du président Macky mouvement de soutien yoo xam ne dañuy koy soutenir. Mhm. te des fois ils n'ont pas forcément une envergure nationale. Mhm. mais ci seen dañu doon nit ñoo xam ne dañu dañu taxaw. dañu taxaw foofu donc dina compliqué trop Macky nan la nar def ak ñoom et euh, ou les petits leaders yi nga xam ne ils sont bons aux côtés du président Macky Sall mais ils sont très bons aussi dans leur dans ci seen gox donc Macky Sall est-ce que sacrifier pour les grands leaders et mm-hmm. je pense à Thiès je a des des des des leaders qui sont qui sont bons là-bas. Mm-hmm. mais euh, euh, forcément qui sous le contrôle du président Macky est-ce que Macky Sall da pour des intérêts euh, donc stratégiques par rapport aux grands leaders qui sont à ses côtés. Mm-hmm. ak compliqué trop pour moom moo tax Walf Quotidien posé wu cette fois cette fois-ci ce matin. ci bi. que ce seront euh, des choix difficiles euh, pour Benno Benno Benno Bokk Yaakaar le président Macky Sall mhm. naturellement qui avait dit au départ que moom mooy loolu euh, par rapport ak ni mu xalaatee ni moom la war a doxalee par rapport à son avenir politique et aussi de Benno Bokk Yaakaar parfaitement ñu des ci politique ba tey dikk ci le mandat le mandat def à sa une bourde au ministère de l'intérieur Antoine Sandiome <laughs> quel titre hein alors mu mel ni depuis sa nomination jamono euh, ay mbir yu doy moo koy am mais aussi du fàtte dernière sortie wam bi nga xamante ne def na ko euh, lors des inondations. oui euh, c'est vrai que euh, bon moi moi moi je je, je n'étais pas véritablement d'accord avec cette titraille mais <laughs> comme comme comme affaire affaire démocratie ouais. donc <laughs> donc donc forcément quand euh, je suis minorisé euh, mm. Mm-hmm. dans la rédaction j'accepte ce qu'il demande de faire parce que mm -hmm. je mm-hmm. ne suis pas seul là-dedans même si effectivement je pense qu'Antoine Diome est un garçon moi je pense bi ma ko gisee ci ci kii bi ci euh, euh, comment dire ci ndox mi j'ai trouvé que c'était un garçon quand même courageux mm. euh, parce que mënoon na ko bañ def tout de suite sama sama xel dafa dafa nekk ci je pense que c'est un garçon très courageux ba nga xam ne li mu def bu doon ñëpp duñ ko def sama xel dafa nekk immédiatement ci Abdou Karim Sall bi mu demee ah. di di di di garab ñu koy lalal basang pour dàll yi bañ a bañ a a a a tax mm-hmm. voilà man seen mentor Macky Sall ñëw di sukk mm-hmm. donc je me dis man j'aime qui qui ont euh, euh, l'apparence l'apparence j'en sais rien mais mais en tout cas qui montre que ni ñoom population yi bu difficulté ñoom ñooy dund ak ñoom mm-hmm. donc je pense que ni c'est vrai que c'est un jeu de mots Antoine Sandiome euh, pour faire un petit peu euh, une lecture <laughs> multiple ou de multiples lectures par xam nga lii mm-hmm. day am dégg-dégg ku nekk mën nga ko déggee nu nu nu Antoine sans son nom de famille euh, ou est-ce que est perdu ou c'est un garçon qui est largué noonu mën nga ko lire nu nekk mais en tout cas ça pourrait être un titre qui pourrait être attirant euh, par rapport à, au, au lecteur justement du du du au lecteur sénégalais tout simplement. man de hmm, man sans jom bi laay jël <laughs> amul jom. man tamit sans jom bi laay jël. ndax hmm. tey bi muy ñëw Tivaouane Diacksao euh, hmm. poste Thiaré fa la ma fekk euh, li may métti lu maanaam suñu autorité yi dañuy bàyyi wala miinal ñu euh, balaa ñoo defal dara rek ñu génn janoog ñoom jàkkaarloog ñoom. sànninteeg ñoom ay xeer ñu sànni ñu ay lacrymogène mhm. pour quelle raison ma loolu moo ma xaw a metti tey boo xoolee ndox mi mu ngi fa depuis jeudi lendemain tam xarit la taw taw vendredi samedi dimanche dimanche ñu wàcc dem tëj payage bi ñu soog a dindi ndox mi mhm. lundi matin tey ndox mi nekkatu fa mhm. kon ça veut dire que bu nit ñi génnul woon dimanche dem ci péage bi. Mm-hmm. du ndox mi du génn. dëgg la teg ku am jom du defee noonu ah. donc c'est un titre euh, qui qui qui mais mais ñàkk ñàkk jom mooy dem ba. <laughs> mais moi je suis pas d'accord avec vous ah, démocratie bi am ci le mandat mooy am fii rek. Euh, waaw parce que parce xam nga lu tax loolu parce que parce que quand même moi je pense que il a été quand même très courageux un mm-hmm. moment donné dem ci ci ci ci mbënd ba dugg ak gars ci biir waxtaan ak ñoom. loolu loolu mais mais askan bi soxlaati nañ loolu. Alioune Sow loolu dañu ay milliards la teg Alioune Sow. ne mhm. lii dañ koo teg pour mbënd mi. ñaata at ñu ñu koy naxee léegi laay seetaan benn maire boo xam ne depuis ba tey mi ngi ak ak loolu. Mhm. Euh, jox ñu ay milliards. pour ñu jëlee fi loolu. Mhm. milliards yooyu nga xam ne tey dañ leen ko jox kenn jugul seen poche ñoom ñëpp ñoom ñi ñu jiite. jugul ci poche Macky Sall ak est ci la aussi honnêtement c'est l'une des questions que je pose ah je ne suis pas là pour jouer l'avocat ni bu compris aussi. fekk ko fi. Mm, waaw je crois que fekk ko fi mais ay ñoñam la fekk. waaw yaakaar naa ne euh, état continuité la. Mm-hmm. Mm-hmm. bu fekkoonte ne tey jii mhm. fekk na fi ñu def fi ñu def yaakaar naa dërëm mhm, mhm. moom dina ci dolli ñaar dërëmam muy ñetti dërëm mu mën a arrangé askan bi mais ña ko def ay ñoñom lañu ndax ba léegi la fi président Macky Sall toog ak ñi mu fiy fal boobu ba tey moo xam mu def moo xam mu bañ a def mais ci biir euh, ñooñu nga xam ne ñoom ñoo ñàkk def ci biir ñooñu la jóge donc yaakaar naa ne xuus bi mu xuus keroog noonu askan bi soxla war na mën a tax ñu amul jom war na mën a tax ñu ne euh, sans a def defoo ba pare ngay pour pour nga xam ne ñoom nga defalul loolu bu doon man la damay am jom toog sama kër. Mhm. wallaahi lazim du ma def def lan def lan. parce que au fait ñoom dañuy dañuy réagir au lieu ñu agir. dañuy réagir au lieu ñu agir. mais mais moom ça fait ça fait ça un an qu'il est au ministère. mais Aliou Sow na état continuité la nag mais Aliou que franchement bu mbënd mi weesoo. moom Aliou euh, moom Antoine mii ñu wax ne sans jom la. Mhm. lan la fi def leneen loo xam ne ni yow tey jii arrangé na la. Mhm. ministère de l'intérieur bi ñu ko jox ci ban côté ak ban côté la def loo xam ne moom boobu ba tey jii nit ñaa ngi génn di njàmbat ci moom. Mhm. parce que li ñu gën a critiqué ci moom mooy bon xam ngeen bi muy doog ñëw yóbbuwoon na saako xaalis si. Ah, ah xaalis si ci xaalis bi. mooy tële gi euh, wax nañu wax nañu bon mais mais mais. en tout cas li ah, li ma meer ba naan sa joma nga ma jooja ndate loolu sa joma nga ma jooja ndate sama yaay ma koy wax seen joma nga ma jooja ndate maa la wax lii ah, doy na waar eh, amoo maanaam yow jom zéro amoo amoo jom a on peut pas dire que Antoine ah, en tout cas ñun moom titre le mandat bu aujourd'hui moom on aime daaw leen jëndi ko xool ko parce que c'est un titre qui mbënn mii mbënn ñu ko teg kenn amu ci jom barke alxuraan kenn amu ci jom jom kon daal Antoine c'est kenn amu ci jom ñun ñii suñu kër bàyyee nga ñetti baar gee <laughs> hmm. mën na tax ñu bokk fa bu doon tay ji ba léegi nii nguur dimbali nañu man depuis 2007 ba ma nekkee xale laa fa jóge woon ñëw piqué rudis gii ba léegi nii ndox maa nga fa ci koñ ya ndox maa nga fa bu fekkee ne ba tay jël nañ suñu alal te kër na waar ay coow waxtu wi balaa moo xoj avant Macky Sall aussi Salma moo tax ñi fi am continuité la Aliou Sow am ñu jom ci ginnaaw je pense que c'est problème récurrent boo xam ne daf nekk ci réew mi te gars dañu am problème difficulté pour gérer pour gérer ayca <laughs> euh, waxtu bi moo ñuy moo ñuy waaj a xoj te faaw ñu ñëw ci waaye ñu demee mandat dinañ dinañ incha allah jënd leen lu mandat rek daal koy lii alors ñu ñëw ci Walf Quotidien Walf Quotidien dikk ci njiital gëm sa bopp bi lee di Bougane Gueye Dany ah, ci appelam bi donc mu mel ni ni ki démb convoqué woon nañ ko à la sûreté urbaine comme niñ ko waxee ci plateau bi ba mu demee nag wuyu ji mhm. dañ ko jox benn lettre comme quoi il faut mu retirer panneau publicitaire yi nga xamante ni mi ngi ci Ndakaaru mhm. ak li ko wax un peu partout au Sénégal donc moom Bougane Gueye Dany mhm. euh, mu défoulé wu bu baax a baax ci le ministre de l'intérieur bi nga xamante ni le mandat nee na il est sans jom donc xam ni que euh, lii lee ab xoqatal rek la ko mën a tuddee ndax amul lenn lu palpable wala loo xam ne tey jii góor mun nañ ko koo wax mu dégg ko ci convocation boobee. mais mais surtout Bougane li ko gën a métti euh, mhm. moom moom mhm. euh, état koy defal nii. Mhm. réewam kon kon waruñu ko tere tere moom Bougane Gueye Dany euh, mu def publicité boobu complexité boobu est-ce que est-ce que amul ay ay yoo xam ne aussi c'est saisissant est-ce parce que publicité bi yaa ngi ci gis turu turu mmh. euh, photo photo mmh. yaa ngi ci gis aussi mi ngi wax ñu inscrire sur les listes électorales pour transformer euh, pour une transformation sociale mmh. maanaam pour jële pratique boo amee dégg-dégg mooy pour jële fi ñi fi nekk te te vraiment on n'est pas en campagne électorale man ay questions lay poser je réfléchis juste euh, te nekkuñu campagne ne rek dañ ci leeral rek ni euh, dem leen dem leen ngeen dem leen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen bindu ak yu demee noonu mhm. parce que bindu euh, seen réew la parce que seen réew mi seen réew la yam foofu kese mhm. même peut-être sax sans sa photo mun na bañoon mm-hmm. def photo ak yu demee mm-hmm. noonu def loolu yaa ngi dégg mun na ko signer sax signer société am ni moo ko def quoi mm-hmm. mooy mooy groupe euh, euh, groupe d'accord ak yu demee noonu mu yam foofu mais daf ci def photo am et puis insister ñu xale yi dem signer dem dem dem dem dem dem euh, def loolu bindu juste pour pour transformer la société pour jël maanaam maanaam maanaam indi ay changement yu bees te ku wax indi ay changement yu bees mooy jële fi ñu fi nekk donc nguur gi dafa xalaat ni bi ñëwee rek mbugaan nañ ko jox benn courrier ci ci biir courrier bi dañ ko si bindal nii ni wax dëgg yàlla il faut que lii nga dindi nga dindi panneau yi nga bind yëpp parce que mhm. euh, mun na déséquilibrer la stabilité euh, nationale mhm. parce que dina am ay par parloo ak ay far. mais nag Aliou Sow hmm. de là à dire que mën na andi trouble à l'ordre public wala acte de vandalisme. aussi loolu est-ce que est kenn mun na bañ a d'accord par exemple ñëw jël ay xeer wala ay machin. Hmm. wala mu ñëw taal taal panneau bi wala yu demee noonu xam nga des surtout déséquilibre boobu laay wax par rapport à la stabilité du pays. man ne code de publicité bi comme ni da koy bañ wala loolu expliqué nañ ko dañu bëggul dugg ci détail rek ñoom expliqué stabilité du pays ñoom expliqué nañ ko sauf que benn affaire kese la loo xam ne dama si d'accord vraiment ak ak Bougane Gueye moom mooy le qu'il dise que euh, euh, ñoom état bi lii ñoom ñoo ko waroon def mhm. liggéey bi mu Bougane def nii avec ses propres moyens c'est l'état du Sénégal qui devait le faire dans son en utilisant son propre budget de communication pour gën ñaax xale yi ñu dem bindu ji mais moom nee nañu état bi du ko def moom Bougane mhm. nee état bi du Mm-hmm. parce que bu ñu demee bindu loolu arrangé leen loolu moo tax ñu def ko buggaan nag nee moom loolu moo tax mu forcé def mbir mi euh, pour que xale yi dem kii parce que xam na ni bu xale yi aussi ci côté am bu xale yi demee inscrire euh, dina ñoom am chance dans l'opposition de faire tomber euh, nañ nañ tomber nañ faire tomber le gouvernement quoi mm-hmm. pour transformation sociale boobu mu wax donc c'est vrai que nekkuñu campagne électorale aussi mm-hmm. donc amul droit di expliquer loolu dans le fond di di ko di ko leeral parce que parce que loolu loolu du woon waree fam fu ñu toll en campagne électorale rentrer beaucoup plus dans les détails. Mhm. Euh, parce que 24 heures lañ ko jox pour mu dindi panneau yooyu. pour est-ce qu'il va le faire ou mhm. pas mhm. donc euh, ñu ñëw ci le journal bi lay le quotidien le quotidien def Covid admis aux urgences Hissène Habré en garde à vue son état jugé alarmant et puis ñu ngi joxe léegi information bi que mujjee naa sax génn àdduna. loolu laa yëg et vraiment euh, ça fait très mal je crois qu'on va faire peut-être tout à l'heure Euh, ak Edouard une édition spéciale. Mm-hmm. Euh, et et ça fait très très mal. Mm-hmm. Euh, parce que parce que parce que lii yëpp waxoon nañ leen ko. Mm-hmm. kaso kaso kaso kenn waru ci bàyyi nit mu mu ciy dee. parce que loolu bokkul ci dignité ndax nit tëjuñu ko kaso pour toroxal ko ko dañ ko tëj kaso. parce que c'est pour pour établir une certaine paix sociale. yaa ngi dégg par rapport ak ñoo xam ne dañu yaakaar ni diw daf leen daf leen tooñ. yaa ngi dégg maintenant bu fekkee dafa nekk ci ay situation làqu na il n'était pas un homme dangereux mhm. euh, wax dëgg yàlla yuuxu naa fu nekk pour ñu bàyyi ko mu génn dem toog mhm. si njabootam parce que il am na âge boo xam ne âge boobu ku ko am wax dëgg yàlla da jege dee parce que màgget rek feebar la mhm. donc yooyu yëpp faisant ça fait que ni on a toujours dit qu'il fallait le qu'il fallait le faire partir ki ko taxoon sax gën a influer pour ñu tëj ko euh, la communauté internationale téye ko kooku làqu na aussi moom moo doon euh, comment dire président tchadien donc Idriss Idriss Déby non donc ou, mais... ou, ou remettre la paix sociale euh, dans le monde ou dans en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et puis même surtout au Tchad ça aurait été une bonne idée et puis réconcilier aussi les Tchadiens parce que ñii dañu bokk façon xeet bu nekk selon que yow président de la République nga donc yooyu yëpp faisant ça fait que pour teewal pour gënoon leen jubóole euh, euh, jubóole Afrique centrale jubóo Afrique de l'Ouest rétablir l'équilibre par rapport ak Tchad bi nga xam ne dafa def frontière ak la Libye euh, ak beaucoup de choses yoo xam ne Hissène Habré qui était un anti-français un panafricaniste xam ne vraiment il n'était pas les intérêts des des Européens man démb bi ma déggee. situation trop quoi laaxum bi mu laaxu ne. lan moo ci mën a fekk Sénégal. mais lu si mën a fekk Sénégal du dara loolu jeex na c'est fini euh, de de dafay arrêter dafay arrêter définitivement toute peine bi nga xam ne amoon nga ko. c'est fini quoi est-ce que est-ce que waroon nañ ko tëj ba mu dee nii pour peine bi doog a arrêter définitivement lan moo taxoon ñu koy bàyyi à celui qui n'était point dangereux nga xam ne il avait adopté le Sénégal comme son deuxième pays c'est vrai que communauté internationale une bonne partie de la communauté internationale complicité bi nga xam ne moo doon président Tchad def na ci xaalisam influé na pour que pour que pour que communauté internationale tëj ko pour que ñu juge ko Sénégal ba tëj ko. Mm-hmm. maintenant que il il il tëj nañ ko euh, waroon nañ ko mën a bàyyi même avant sax euh, Idriss Déby di gaañu ba ba ñu fexe woon ba retrouver leen ba ñoom ñu waxtaan ñu defal leen ay photo ñu ñu euh, kii tam delluwaat dans son même bu fekkee ne bëgg na Sénégal mu delluwaat dans son pays d'origine ñu waxtaan juboo jéem a set yan mooy seen priorité pour gën a développer Tchad bi nga xam ne bari na ay ressources minières yoo xam ne mm-hmm. mënuñu ko développer ba tey ndax stabilité bi nga xam ne moom moo am ci réew bi depuis trente quarante ans maintenant c'est le fils de Idriss Déby qui au pouvoir j'espère qu'ils vont se rattraper man je dis je transmets toutes mes condoléances à mhm. madame Raymonde donc donc bi nga xam ne wax dëgg yàlla ndaw soosu reyante na xam naa am na lu ko naqari nag mhm. ndax euh, xalaatoon na xëy na mhm. euh, euh, parce que Hissène Habré dafa amoon corona ci biir kaso bi la amee corona hmm? donc yooyu xeex na ba sonn pour jëkkëram maam euh, Raymond Raymond Raymond Abré et que et que di ñaan yàlla euh, jullit la ni ñu def sax bu doon sama sago euh, kii Mamadou Mouhamadou Ahidjo bu bu bu Cameroun qui était le premier président de la République du Cameroun ou deuxième président qui est en 81 Mamadou Ahidjo boobu fii lañ ko denc Yoff moom la Paul Biya aujourd'hui mm-hmm. remplacé depuis 40 ans pratiquement Mamadou Ahidjo boobu yàlla nañu yàlla def ba ñu def la Hissène Habré nga xam ne Sénégal moo doon deuxième dëkkam mm-hmm. ñu ñu denc bu dul jeex te ñu bari tey jii ñuy wax ci Sénégal ñoo xam ne ay banquier ay yu mhm. bari yoo xam ne bëgguma wax seen tur ay ñoom Abdou Diouf yëpp mhm. lekk nañu ci xaalisu ISEN wallaay mu ngi noonu ñuy delloo di jaale rek jaale waa ah. Wakaam aussi jaale waa Wakaam fi nga xam ne foofu la dëkkoon mhm. di di di ah. bu baax a baax euh, euh, ah, a suñu papa Ousmane Sow ñun duñ ko fàtte benn yoon donc mu mel ni waxal sekk ni bëgg naa ko di sekk. lekk rose bëgg na la. Ah, yal na yàlla sàmm sekk man aussi je t'aime. ayca donc nga yàgg fi loolu te weex. donc mu mel ni lii moo nekkoon ci déj bu tay bi lee ñu jaajëfal. Euh, tata ajaratu Penda Diallo Gueye ah bi ci rukk bi moom mooy jéeg bi ci rukk bi la force tranquille ah bu euh, di jaajëfal aussi Isaaxa sama xarit bu bees bi nga xamante ni démb ak tey jël naa ko xaw ma nag suba